Euh, buñu ñu donc si app biñu ko app amal Sénégal dotul jënd oxygène bo xamante dañ koy def ci ay bouteilles diko indi ci biir hôpitaux yi wala ci biir centre de santé yi centre de santé bu nek ak hôpital bu nekk danañ fa teg ben centrale bo xamante fofu lañu la oxygène bi diko indi ci biir structure yi loolu lañuy woy autonomisation en oxygène fexé ba centrale bu nek li ngay structure bu nek li ngay am ci oxygène yow yaa koy defaral sa euh loolu nag euh, ma ci centrale euh, parce que depuis ñu commencé xeexu mbas bi ba euh coowlu oxygène bëri na mais may wax né Sénégal musul am mukk bëss bo xamantene am na rupture oxygène ñu né oxygène amul ci dëkk bi té dëkk yu ñu ëpp doolé fouf am nañ situation yo xamantene bu ngeen sello bu ñu wacce oxygène bi ci booru hôpital bi ñi maladie yi sax dañuy génn di xëccoo oxygène bi loolu musul am Sénégal té ñukoy sant suñu borom mais nak euh, il faut que ñu xamné oxygène dafa nek premier médicament médicament bi ñëk ci walu xeexu Covid motax euh, structure publique yi ñu ngi leen koy jox gratuitement mais excellence le président Macky Sall daf ne bu ñu yam rek jox ko structure euh, publique yi nañu fexé ba structure privée yi jot ay malade Covid aussi ñu leen di fournir oxygène te duñu fay dara bu ko défé facture malade bi baña donc euh, nek facture bu élevée loolu ñu ngi si fi may wax ak yéen ñaar fukki structure ak ñaar ñu ngi jot privé ñu ngi jot oxygène te duñu fay dara enrôlé nañ leen ba pare plus maintenant structure publique yi xamante ne ñu ngi doon jot loolu nag ñu rafetlu parce que loolu dafa am solo lool. may euh, wax ne aussi donc si wàllu oxygène li ñu si mën a noté mooy que ne yii ñu jot tey muy Fann di ko jël ak Dalal Jàmm yeneen yi bu ñu ñëwee ñu couvrir ko ba ñëpp matal nekk na ay centrale d'oxygène dernière génération non seulement jarul ñuy tabax fu ñu leen di dugal parce que dafa ñëw déjà configuration conteneur bi da ngay ñëw rek teg branché mais aussi danañu mën a permettre aussi ñu siy sol ay bouteilles yoo xamante ne mën nañ ko jëlee foofu yóbbu ko si yeneen loolu tam aussi fonctionnalité bu am solo la. centrales yi ñuy réceptionné nii ñaari centrale d' oxygène la yoo xam ne ne c' est des nouvelles technologies la bu ñuy wax VPSA. Euh, VPSA parce que dafay économiser euh, électricité énergie de presque 60 parce que c'est dafa am solo trop ci production bi parce que centrale d'oxygène l'air ci ambiant bi lay produire donc électricité rek la maintenance donc si on économise 60 de l'énergie c'est quelque chose important aussi sur la facture euh, hospitalière Je voudrais aussi tamit que centrale yi Sénégal partout dans le monde parce que c'est une nouvelle technologie

tous les deux mois, tous les mois on livre deux jusqu'à que marché bi mën